ça en fait. donc aujourd'hui le problème c'est ça. non rek xam nga yalwaan bi muy wax ak yalwaan bi am léegi du benn parce que femme bi lu mu pauvre. dafa bëri façon mu yalwaan sax. femme bi yow si si lu mu pauvre pauvre. wér na dara jotu ko. Mm-hmm. wér na dara jotu ko. Mm-hmm. donc am na liggéey boo xam ne sa ñaq moo la koy may. Mm. fii ñi ñu dañuy wër di xëy di wër fóot ba jant so. Mm-hmm. di xëy di wër nettoyer ba jant so. ñi ngay xëyee am pasté fu toog si mbedd bi. di xaar ku la ku la sarax boo amoon Pastef dugg ñaari kër ñetti kër doo xëy te gisoo ko la ne kaay liggéeyal ma mm. bu la liggéey boo liggéeyee ñaari fóot ñetti fóot fóot léegi bi gën a ndaw junni la mm-hmm. am nga ñetti junni nga dem defar sax table daaj di teg di jaay gis nga nit boo yoree say doom da ngeen yar si jom des fois nga gis ay mag yoo xamante ne jamono ji dama yàlla baal dañu nekk ay mag yoo xamante ne amuñu jom parce que yaruñu leen si jom <laughs> mais xale boo ko yaree Aïcha ci tàllal loxo dangay xool mbedd yi boo génnee rek xale yi dañuy tàllal loxo am na si benn xeet bi fi ñëwoon temps dañuy jàpp séeréer dañuy jàpp séeréer di jàpp séeréer bi di la di la langaamu tànk ko joxoo leen duñ la bàyyi mm. gis nga Sénégal ñu bëggul yomb man jant bi ma keroog ba ma rombee ay yalwaankat ñuy teggi nat 500000. Hmm. waaw ba siy jàppante. <laughs> man si laa ne woon sax damay bàyyi liggéey ba dem foofu ndax xam naa moo gën a dugg. <laughs> non non boobu bi noonu. Mm-hmm. jour boobu ki waroon teggi. am ku ne man si laa jënd kër Kër Massar yàlla xam na ko walaay la jënd je blague pas. et ça m'est arrivé aussi alentour Almadi bi. gis nga fii nii grande mosquée bi nii. Mm-hmm. benn jour ay 10 heures ba maa ngi RTS ñëw bi may bi ñuy dugg si noonu. mais bi ne ah tey de moom journée bi neexagul. xam nga xëy ba léegi ñaari junni rek laa am a jot. ñaari junni nga eh, am ñoom business lañ ko def. cest am mu nekk dëkk bu nga xamante ni quoi qu'on puisse dire nit yi dañu am yërmande te am na ñoo xam dañu am yéene. yërmande waaw uh-huh. am na ñoom dañu am yéene. dañoo gëm sëriñ non non je parle pas de saraxe bi. je parle de business bi ci nekk ak ni mu amee xaalis. des fois nit mooy gaare oto fekk la nga toog mu yëkkati 10 000 jox la ko. dëgg la ci koy jox pour sarax la. dëgg la dala koy jox parce que yërëm na la fekk na la mais parfois parfois <laughs> xale yi ngay exposé lay day daw gis xale yi. Mm. nga nga kii loolu tam benn benn. waaw loolu tamit abus la parce que ñu ngi eh, utiliser xale yi ci loolu. gis nga boo rombee nii di dem si VDN. Mm-hmm. am na ay place yoo xamante ne na ay yoo xam ne dañ koo def mbaa mm-hmm. del seen i sër teg si bu heure bi boo fa noonu dem tournée ji da ngay gis ñu jël seen doom dugal ci paañ di sang. fa lañ dëkk. non man loolu daf may def kaa fa lañ dëkk. mais maam man côté Mariste bi aussi. fu nekk la yalwaankat yi dëkk. te da ngay gis koo xamante ne day yalwaan kuy am journée 10 heures suba. dix mille francs mënoo ut néeg boo dem dëkk ji. gis nga wetu musée des forces armées. am na femme boo génnee mais léegi quelle solution lan mooy solution. mu ngi noonu am na koo xam ne am na koo xam ne dafa euh, yalwaan ba ñi ñu xamee ko ñu dajale fond bu bëri jox ko. Mhm. pour mu départ. Mhm. un mois la ci def mu ñëwaat lalaat. bul sonn parce que xam nga c'est xam nga solution bi. solution bi mhm. mooy. ku nekk li nga war a def nga def ko ah, c'est-à-dire parce que c'est assez transversal du doon solution boo xam ne ci benn bureau lay jógee parce que bu fekkee état bi euh, moom am na lu ko warlu mooy ñi nga xam ne dañuy yàlwaan te jugewuñu ci daara yi mm-hmm. ñu xool fan la ñu jugee bu dee jugewuñu Sénégal ñu taxan leen ñu delloo leen seen réew bu ñu demee foofu ñoom bu leen nekkee ñu dem yàlla mais si niveau niveau suñu niveau frontière yi parce que euh, euh, mhm. bi amul benn papier bu ñu laaj aussi c'est doon daanele mooy bu dee bu ñu dëjee le jëlee yóbbu mhm. avec des communiqués fësal lépp ne bëggatuñu gis kenn kuy yàlwaan ci mbedd ñu jël ñu yóbbu leen fañ jugee ba pare teg sanction ne fi ku ñu rombati ngay yàlwaan mhm. dañ lay jël tëj la loo gis kenn ci mbedd mi bu ñu ñëwee ñi nga xam ne ñoom ñooy taalibe yi nga xam ne ay sénégalais lañ mhm. mais ci ay daara la ñu nekk ñu accompagner mhm. daara yi mhm. ba nga xam ne ñi ñu foy yóbbu et puis parents yi aussi ñu ñu contribuer à l'éducation euh, religieuse de leurs enfants dooguma la de am na ñoo xam ne duñu ay taalibe waaw yow mu am juróom benni doom la yónnee ko Pape Malick mu ñëw fii muy liggéey ñu versé bu la versé 750 parce que suñu taalibe yi nekk fee suñu ko ñu nañu versement dafa yokk 750 la ñuy jublé nekkatul 500 yaa ngi dégg léegi 7 250 yi moom léegi juróomi doom Aïcha nga koy versé di ko versé bu weddee ñu yónnee seen papa dund dëkk ba te ñu ngi fii di liggéey ce qui est malheureux ce qui est mhm. euh, mhm. di yalawaan à ñun ñu ay taalibe de. 23h nga wax 23h billaay wallaay dugg ba 5h du matin. ñu ngi parce que ñun duñu ay taalibe ñooñu mooy ñi liggéey si. te seen parents yi sorewuñu leen ay xale non non ay seen parents sorewuñu leen ils sont côté. dama ne la xale yooyu noonu mooy ñi nga xamante ne ñu leen inscrire fii bu ñu versé sëriñ bi sëriñ bi bu weedee da yónnee seen bàyyi xaalis wala dégg leen affaire bi link la boo xamante ne ni doo comprendre. parent bi la ñuy versé xaalis bi. si sa day am juróomi doom. waaw yónnee ma ko man mii. Mhm. man su ma xëyee yóbbu xale si mbedd xale yi bu ñu amee 500 500 francs chaque jour dama génne 200 te ko ne papaam moo moom boobu de moom laa koy yónnee. mais ndey loolu ma ko gëm ah, waaye. man li ma lay wax ne ay preuve yu palpable laay tegal papa ji day fayeekul xale yooyu ngay gis ñu nekk si mbedd ba 4 du matin 5 heures jàngewuñu si benn daara tari loo benn saar na leen boo tawee saar ma jox la téeméer essayé ko rek duñu la taril parce que dañu leen indi fii pour ñuy liggéeyal seen waajur sëriñ bi da siy am papa mooy trafic de d'être humain bi rek parce que loolu te loolu aussi y a une structure qui qui qui qui bu étatique boo xam ne moom moo war a xeex loolu aussi c'est-à-dire euh, nañ dëgg mais am nañu deful seen liggéey ah, eh, su fekkee dëgg. su fekkee dañoo war a repatrier yi nga xamante ne dañoo dañuy yalwaan si Dakar wala Sénégal bokk mhm. léegi sénégalais yi yalwaan ñoom te duñu ay xale na lañ leen di def. mën nañu tas yalwaan yalwaan bi la ñuy tas ne leen nag bu ñu leen fekkee ci mbedd mi tëj leen doo ci doo gis kenn ci mbedd te dañoo ñu ragalee kaso xoolal ku si amoon kër kër Masaar comme ni ñu ko waxee ñibbi kër Masaar ku si amoon nattu teggi nga dem defi ji commerce yalwaan moom day dakk si nii wala si naa di yàkkul ñu génne leen ñu dem ñibbi di yalwaan bu jënd terrain moom nekkatul yalwaan <laughs> merci beaucoup ñu jaajëfal la sujet <laughs> bi am na solo la dans sujet d'actualité la ndax sànq rek on en parlé dans la dans la revue avec Kajor merci beaucoup on enchaîne ku wax lii wax la ca des bu ñu jógee ci yelawaan gi ñu dem ci xew-xew léegi-léegi bu bàkk bi noppee ñu dikkaat ci plateau bi